saddit lisaani nawwir janaani safi amaani wasid baraa'i assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi sant yàlla boroom bi nga xam ne ni yàlla te yay ci ak cantam ab njaamam da cee lott lool di julli tey sëlmal ci sayidul kawnayni wattaqalayni walfariqayni min urabin wa min ajami sallallahu alayhi wa di yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul mbokk yi di leen nuyu nuyoo bi nga xam ne moom la yàlla boole te mooy nuyoo bi waa aljanna di nuyoo mooy nuyoo bi tàmbalee ci jàmm te di yeexee ci barke te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. fiñ leen nuyoo mooy fiñ leen baaxoo nuyoo seen télé réew mi TV ngeen di ko topp ci TNT canal 108 waaye 97 point 5 ci rajo bi. seen émission bii di keppaaru mag ñi ngeen baaxoo ko ànd ak seen bokk Serigne Bara Mbacké dimaas ju jot 22h ba minuit. nuyoo yooyu ak suñu ziyaara yooyu ñoo ngi ciy jiital borom ngëneel a Cheikh Mouhamadunil Muntaqa buñ Cheikh Mouhamadul Bachir ñi ngi koy ñaanal yàlla dëgëral ko waaye yàlla sàmm ko waaye yàlla it mottali ay yéeneem. nay naal di yeggale tey naalaat di yeggalewaat na sax ci naal ak di sottal ñun ñu koy seere noonu lañ koy ñaanalee kilifa gu tedd ga fa Tiwaawoon a Seex Aboubacar Sy Mansour moom it di ko ñaanal yàlla sàmm ko ba mottali mbooleem li ay yéeneem ci xadra malikiya noonu lañ koy ñaanalee it eh, Cerno Basir mi nga xam ne moo amee jataay maam Seex Omar Wuuti waaye ziyaara boobu it lañuy ñuy yóbbu Canaba waaye boobu la ñuy yóbbu Njaasaan waaye boobu la ñuy yóbbu na Ñaseen boobu it la ñuy yóbbu Medina Baye boobu it la ñuy yóbbu ci mbooleem kër yi diine yépp yi ci Sénégal yi ñu tudd ak yi ñu tudd boobu it la ñuy jox suñ mbokk yi dëkkandoo te mooy waa jàngu bi mboolem nuyoo yooyu ak ziyaara yooyu moom la ñuy jox téléspectateur téléspectatrices yi nga xam ne ñooy topp seen télé bi di réew mi TV ci seen émission bi nga xam ne mooy keppaaru mag ñi ngeen di ko am dimanche bu jot 22h ba minuit keppaaru mag ñi di émission boo xam ne yéen a ngi koy am dimanche bu jot waaye keppaaru mag ñi ni ngeen ko baaxoo xamee mooy ci xar kanam bi muy indi waxtu wu ci ne mooy jàngale suñuy mag yi diine waaye suñuy mag yi nga xam ne ñoom ñoo sàmm diine ji biñ ci jotee dañoo mujjewul puso bi mu réer moo tax ñun ñu mën a xam naka lañ war a toppee alayhi salaatu wassalaam ndax kat ba mu fi jógee ak léegi 1445 junniy at ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom bu fekkoonte ni saxaaba yi defuñu lu leen war taabiya yi defuñu lu leen war taabiya taabiya yi defuñu lu leen war ba suñu mag ñii jottali ñu ko ñun yaakaar naa ne buñ dikkee duñu fi fekk lislaam wala boog beneen lislaam lañ fiy fekk bu bokkut ak bi fi alayhi salaatu wasalaam bàyyi woon suñu mag ñooñu ñu am ci suñu réew ñoom lañuy tànn ci seen émission bii di leen fàttaliku ci seeni jikko waaye ci seeni jaar-jaar waaye ci seenu liggéey bu rëy boo xam ne liggéeyal nañ ko lislaam léeg-léeg ñu tudd kenn ci seen i tur waxtaani ko waaye léeg-léeg it nag ñu indi lenn ci seenum jàngale waxtaani ko comme niñ ko baaxoo defee noonu ñu ko baaxoo defee it noonu lañ koy defee waat tey incha allahu taala ñu dalal suñ mbokkum daara al imam Mouhamed Niang dëkk ci dëkk buñ naan kër Abdou Ndoye ci wetu Kayar waaye nekk fii ci Dakar Parcelles amee fi liggéey bu rëy a rëy rëy te mooy liggéeyam mooy jàng ak jàngale waaye jiite nit ñi waxtuy julli waaye di def ay xutab yu am solo yoo xam ne dana jubal nit ñi waaye di leen teg ci yoonu siraatal mustaqim al imam Mouhamed Niang moomu moom la ñu fas yéenee àndal tey suñu waxtaan incha allahu taala ginnaaw buñ ko joxee mu nuyoo ba noppi rek incha allahu taala ñu dikk ak moom ci ban thème lañ war a waxtaanee ak naka lañ ko war a àndi incha allahu taala al imam fal tatafaddal mashkura bismillah aouzu billahi samii alalimi min alsheytani allain alrajim alhamdulillahi waliyi almuttaqin wa huwa alladi yatawalla alsalihin wa salaatuhu wa salaamuhu ala sayyidina muhammadin afdali wa ahabbi wa aqrabi ilayhi min xalqi wa ala alihi wa ashaabihi almutaxalliqina bi axlaaqi jaclana allahu min alladina yataxalaquuna bi axlaaqihi wa bi axlaaqihim wa bi axlaaqi almuminina alsaalixin wa baado alsalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum alsalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki réew mi tv ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara sëñ baara ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la delloo nuyoo bi mhm. di rafetlu di ci nuyoo bi nga nuyu sunu kilifa diine yépp mhm. sëñ Muntaqa sunu sëriñ mhm. sëriñ kër si Mansour di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla fiq seen fan sëriñ Thierno Mouhamadul Bachir sunu wayjur mhm. sunu lépp ak mboolem rek ñi nga xam ni ñoo taxawu diine ji di tette njaboot gi jëme leen ci yàlla ak orientation yu rafet ñu ngi leen nuyu nuyoo ya gën a sell di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm sutura ak jàmm ci réew mi ak jàmm ci mboolem li wér réew mi gannaaw bi ñu nuyoo téléspectateur yépp di leen ziyaara di la delloo nuyoo di la wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi di kontaan ci dalal bi mm-hmm. di ñaanal yàlla lii ñu bëgg a waxtaanee tey mm-hmm. yàlla na yàlla def ko mu génn ci dënn yu leer mm-hmm. jëme ci xol yu leer yàlla jëriñ ñu ci ñun ak ñi ñuy seetaan ñépp bi jaay sayidina muhammad sallallahu alayhi salaam wa rahmatullah al imam Mouhamed Niang euh, wax dëgg yàlla nuyoo bi jot na jotali na euh, noonu it lañ nii lañ ko séentoo woon euh, ndax kat suñu këri diine yi wala suñu xalifa sénéro yi ñoom ñooy suñuy làmp yi nga xam ne ñun ci ñoom la ñuy tegtaloo leneen lu waaye jàpp nag bàyyee nañ la ak loola respecté la ko waaye ñun li ñu gëm mooy tariqa li ñu gëm mooy tariqa waaye tariqa yi jël wér la tënku ci ak gum gum goo xam ne moom la ñuy wax gum ak tasawuf al Muhammad incha allahu taala yaakaar naa ne tey tomb yi nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaani mhm. bi ci jiitu mooy lan mooy tasawuf mhm. bi nga xam ne ñun suñu mag ñi mhm. moom lañ fekkoon ñoom ñu mooy ko ñu jàpp ci gum googu ngir mu dox seen digg ak rasulullahi alayhi salatu wasalaam te lépp di njàngaleem yonent bi alayhi salatu wasalaam moom la ñu war a waxtaane lan mooy tasawuf waaye ki nga xam ne moo nekk ci tasawuf nag yan melokaan la war a amee ginnaaw buñ noppee ci loolu nag ci lañ war a dikk nag ci tariqa bi nga xam ne mooy a tariqa tijaani bu abul abbas Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu anhu wa nafaana bi barakaati moom tariqa boobu am na ci lu ñuy wax xadra al jumaa waaye am na ci lu ñuy wax wasifa ñaar yooyu bëgg nañ ci indi ak yaatal ak leetar ak leeral ngir ñi nga xam ne ñoo nooy ñoo ngooy ci tariqa sayxina Cheikh Ahmad Tijaani ñu gën a xam yi ñoom ñaar yooyu lan mooy wàccu waayam ci tariqa bi ak ku bokk ci tariqa bi ñaar yooyu naka nga ko war a jàppee ak naka nga ko war a fonkee lu jiitu loolu al imam ñoo ngi euh, ziyaara bu baax a baax yi kilifa kër gi euh, sëriñ Mbagnick Diop mhm. moom it di ko ñaanal bu baax a baax moom it sunu borom sàmm ko mhm. ndax kat euh, peccum liir bu neexee day jaa jàpp ca wagg ya mhm. buñ bu àdduna bi mënee dégg suñ kàddu bañ mën a jàngale dara ci lislaam wala barañ bañ mën a jàllale benn message ci njàngale yonent bi aleyhi salaatu wa moom la ci loxoom la ko yàlla jaarale kon ñoo ngi sàkku yit ngeen ñaanalal ñu ko moom it euh, kër gi nga xam ne mooy réew mi TV réew mi FM réew mi quotidien ak mboolem barabu liggéeykaay yépp it suñu borom yokk ko te yokk yit mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey bi euh, DG Alhaji Moustapha ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñoo àndal liggéey bi euh, al imam mm-hmm. suñu laaj bu njëkk mooy lii ñuy wax ak tasawuf nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñun la ñuy wax euh, waa tariqa yi mm-hmm. ñun ci gum googu la ñu jaare mm-hmm. lan mooy tasawuf awalan waaw imaam jërëjëf sëñ Baara mm-hmm. di ñaanal kilifa gi nga wax léegi sëñ Mbañik yàlla na yàlla yëkkati kër gi mu kawe te di ko bégal mi ngi dox mission ci diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ni woon balligu anni walaw aayatan jotalal leen ma mission bi ma yàlla sant mu jot yéen képp ku am jumtukaay boo jottalee ci diine rek mhm. dugg nga ci biir mission yu boobu mhm. te lii ci jumtukaay yi ñuy jottalee alquran la jumtukaay yi ñuy jottalee xam-xam la mhm. ñoom ñu def ci seen juhdu ak seen maal ak seen lépp kon yàlla na yàlla taxawu leen taxaw seen njaboot ñoom ñëpp allahumma amiin imaam laaj nga laaj bu am solo bu rëy boo xam ni bu ñu ko moom kese kese kese doyoon na tem. doyoon na tem wallay ndeysaan. moom kese maa maana tasawuf maa huwa tasawuf. wallay ndeysaan wallay ndeysaan. Mhm. lan mooy tasawuf. Mhm. lan mooy njëriñu tasawuf. Mhm. ban importance la tasawuf am ci biir mujtamaa bi ñuy dund. fan la tasawuf jógee. fan la jógee. Mhm. xam nga baat yi. Mhm. baat yi nga xam ni moom la ñuy mhm. utiliser ci diine. wala ci euh, xam-xam yépp dañuy dégg ñu naan la ilmul usul. ilmul fiqi. ilmul mantiqi ilmul balaaga. et cetera et cetera. jamono yonent bi ak jamono saxaaba yi sallallahu alayhi wa sallam yooyu daawoo ko dégg. daawoo ko dégg ndeysaan. parce que diine ji juddu na. mais branche yi. Mm-hmm. lu adduna di gën a dem yàlla di gën a balluloo branche diine muy gën a yaatu muy gën a yaatu ndeysaan loolu muy gën a yaatu nag moo waral asmaa yi di ñëw dëgg la dëgg la mm-hmm. kon tasawuf mm-hmm. baat bi mi ngi jóge mina safa yi mooy ci sell safa safa ñii nee nañ mi ngi jógee ci mina suuf su <laughs> mooy yére boo xam ne carton la <laughs> mais bi gën a wér mhm. parce que li tax ñu tuddi leen al mutasawifun mhm. ñi nga xam ne dañoo dëdd woon àdduna mhm. nga xam ne yàlla rek rek moo leen ñor ñoo daan sol yére yoo xam ne coton kese la nga xam ne bëgguñu àdduna bëgguñu taaru ñu bu ñu uddee leen tuddee leen mutasawifun mutasawifun solkatu coton yi nga xam ne ñoom dara yitteelu macha allah uh-huh. léegi nag aslu baat bi dëgg-dëgg originam am mooy mina safaa i mina safa mooy mm-hmm. nit ki nga xam ne dafa meloo. safa bi saad waaw kay. Mm-hmm. mina mm-hmm. safa léegi lan mooy asloom. la bàyyi est-ce que mën nañ ko utal. uslub ci biir sharia. suñu jàngee xadis alayhi salaatu wasalaam bi jibril ñëwoon. sukk ci ñaari bëtu oomam. jël ñaari bëtu oomam moom jibril alayhi salaatu wasalaam teg ko ci bëtu oomu yonent bi. alayhi salaatu ma huwa mm-hmm. mm-hmm. al islam ma huwa al iman ma mm-hmm. huwa al ihsan al boobu jàng nañ ko jibril na yonent bi man day dama ñëwoon di la laaj Umar mi nettali hadis bi sax dafa ñun gisuñu waa ji jeexitu tukki gisuñu ci moom ñaq gisuñu ci moom benn poussière mu laaj yonent bi ñetti laaj yonent bi tontu muy dëggal mu ne yonent bi maa huwal islam. Mm-hmm. yonent bi wax ko mm-hmm. mu ne ko maa huwal iman. Mm-hmm. yonent bi ne ko an tu'mina billah. mu ne ko maa huwal ihsan mu ne ko an taabudallaha ka annaka tara ka annaka tara kon. bu ñu tënkee fan la tasawuf génn. mi ngi génn ci ñetti branche yi. te ma nga génnee ci branche bu ñuy wax al ihsan. al al amalu bil jawaarih ah, wallaay ndeysaan da ngay mm-hmm. jëfe mm-hmm. santaane yi mm-hmm. bu julli jotee nga jóg julli ñu ne ah sëñ Baara de nangu na <laughs> nangu na bu koor jotee nga woor ñu ne ah waa aslama hmm. aslama mooy nangu mooy soumission geste yi ngay def hmm. te sa yàlla santaane ko hmm. te amoo ci benn looy contesté nga nangu ko loolu mooy islaam loolu mooy islam aslama yuslimu islaaman mooy jébbulu na nangu na nangu total dëgg la du ni lu tax yàlla santaane nangam bu du lii lii moo ci sama xalaat déedéet yàlla santaane na damay pratiquer damay pratiquer loolu mooy islam loolu mooy islam nga nekk ci di ko pratiquer di ko pratiquer am na deuxième branche bu ñu wax al iman al iman iman mooy gëm mhm. lii ngay pratiquer bala nga koy pratiquer da ngay gëm fa mu jóge gëm ki ko indi mhm. gëm li mu jàngal mhm. fi mu jóge mooy ci yàlla Hmm. ki ko indi mooy rasulullah alayhi salaatu wasalaam li mu jàngale jaare ko ci waxu yàlla hmm. nga gëm ni lii dëgg la dëgg la dëgg la comme qawaidul iman yi ñu jàngoon hmm. sitta sitta yooyu yëpp nga gëm an tuminu billahi wal malaika wa kubbi haadin salikin wa salika wa yawmihi l axiri wa rusuli kiram wal qadari alladi yajudu bil maram jeex na nga gëm <laughs> juróom benn yooyu macha allah te doo ci dute da nga koy gëm yaqinan macha allah nga gëm xaybu gëm lu ñëwul ne te yonent bi wax ko ajjana safara yawmal qiyaama qiyaamati dekki mm. Mm. xisaab mm. yooyu yëpp donc da ngay am yaqiin ne dëgg la parce que ki ko indi du wax lu dul dëgg dëgg la dëgg la mm-hmm. imaan boobu nag. Mhm. lii wane ni dëgg la. Mhm. mooy bu julli jotee allahu akbar nga dem jàpp ñëw julli ñu ne ah, a waa ji kon mhm. imaanam dëgg la parce que gis nañ ko mu julli. dëgg la bu koor jotee kazalika. boo amee azaka nga génne kazalika. su aj jotee nga dem defi ko ñu ne waa ji day ku gëm la. parce que zahir bi lañ ñu atteloo. dëgg la. nahnu natawalla zawahir. allahu yatawalla albawatin. wallaay ndeysaan. biir jaam bi. la fa ne ñun yooyu kenn atteloo. suñu yoon nekku ci. jàng nañ ko ci. bi yonent bi yebalee sariya ba dem geeri mhm. ñu taseeg benn waay yor ay gàttam waaye ñu ne leen asalaamualeykum ñu ne a day làqatoo baat bi mais du jullit waaye du jullit ñu attaqué ko rey ko rey ko màng alal ci <laughs> indi ñun yonent bi ñun daal benn waaye lañ taseel mu naan asalaamaaleykum nag te gëmu ci dara hmm. ñu rey ko indi alal ji yonent bi ne hmm. leen subhanallah la ilaha illallah xar xar ngeen xool bi ba xam ni li muy wax gëm na ko wala gëmu ko allahu akbar ñu tiit lox mhm. Zeydu ci la bokkoon mu ne yonent bi baal ñu mhm. yonent bi na ko mhm. nan ngay def ak baatu laa ilaha illa allah bi waa ji tudd wax dëgg mooy def ak wax dëgg wax dëgg wax dëgg te nga ko atte nga ko te xaru xol bi wax dëgg ba pare def nga ko mushrik def nga ko yéeféer te yow xaru xol bi wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kon naxnu natawalla zawahir wallaay ndeysaan biti bi li ñu waa ji won ñun li ñu wax la jàpp mi ngi woor mi ngi tudd baati Hmm. jullit lañ koy jàppee. dëgg suñu yoon nekku ci gëm na ko gëm ko parce que loolu yàllaa ko xam loolu yàllaa ko xam. kon il faut ñuy bàyyi xel. Hmm. di yem fi ñu yàlla yem. dëgg la dëgg la nit ñi yàlla. kon nañuy moytu di takfiiral nit daal. voilà liw li muy wax gëmu ci dara naa nga. di julli yor jàkkaam nekk imaam mokkal alquran di jàngale xam-xam. nga ne li mu nekk lépp dara du ci dëgg. waaw ndax bokku leen <laughs> gis-gis. bokku leen école rek nga tafkiir takfiiral ko wallaay ndeysaan musiba naaru musiba wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan muy imaan mm-hmm, mm-hmm. imaan nag dafay yokk day évoluer ñu ne lan moo ko yokk mooy bis diyaadil amali saliha loo gën a dolli jëf yu yiw da ciy gën a taxaw di ci gën a kolewu say ngëm yàlla day nekk leer buy évolué wu di yokk dëgg la jëf yooyu day nekk énergie buy taal sa xol bi sa xol di gën a takk sa iman di gën a kawe dëgg dëgg léegi nag jëf ji mooy islam gëm gi mooy iman waaye nag lu leen war a peinture ba ñu taaru ba rafet. Mm-hmm. mooy al ihsaan al ihsaan moo tax ihsaan. macha allah mooy finition diine. mooy finition diine mooy nga tabax. Mm-hmm. defar lépp kuule ba pare. Mm-hmm. tabax bi pare na. waaye nag dañu bëgg buñ ko xoolee mu ne rafet na. dëgg la looluy ihsaan. dëgg la boo amul fenêtre boo dëkkee tawte. bu noonu kon ihsaan. <laughs> ihsaan moo gën a rëy. Uh-huh. parce que mooy wane ni bi ngay julli. nee nga allahu akbar ba sa ñeenti rakk mat. ndax defe nga ko ihsaanan. ndeysaan ndax rafet na. la ilaha illallah la ilaha illallah te ba nga koy def kenn fekkewu ko est ce que rafet na. Mm. wallaay ndeysaan mooy imaan bi nga gëmoon ne yàlla. Mm. an tuumina billahi an taabudallah ka annaka taraahu mooy ihsaan. dëgg la dëgg da ngay jaamu yàlla mel ni yàllaa ngi ci biir saal bi. Uh-huh, uh-huh. yaqin bi nga jàpp ni yàlla ngi ci biir saal bi. Mm-hmm. moo lay poussé ihsaan bi mat. Mm-hmm. ihsaan boobu nag. Mm-hmm. ci laa jëm. foofu la tasawuf foofu la tasawuf génn. dëgg la. mooy rafetal. Mm-hmm. inna allaha xalaqal ihsaana fii kulli shay. Mm-hmm. yonent bi nee na yàlla bind na rafetal. ci mm-hmm. lépp ci lépp ndeysaan. ba mu ni bu ngeen dee rendi sax rafetal leen. rafetal leen wallaay ndeysaan xam nga baara. wallaay ndeysaan baara rendi bu rafet wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan man wallaay ndeysaan nga war a tàqali bopp ak baat ci xar yonent bi ne rafetalal. rafetal leen ko wallaay ndeysaan waaw loolu. yàllaa tàggat <laughs> yàllaa tàggat xar mi. tasxiiral la ko nga moom ko yilif ko yàlla ne la saa yu la neexee tëralal nga ren di mm-hmm. nga lekk waaye nag na rafet na rafet moos wallaay mënoon nga jël sémmit wallaay ndeysaan dóor dóor ko boli gi wallaay ndeysaan waaye dafa ñaaw wallaay dafa ñaaw moo mën nga jël si si si waaw dagg baatu xar waaw dafa ñaaw ndeysaan yonent bi ne jëlal paaka nga ñawal ko ba mu ñaw mhm. te boo koy rendi bu mu gis paaka bi mhm. nga bu ko ba tëral ko ndeysaan rendi ko rendi bu leer baarakallah loolu mooy leer na <laughs> wallaay ndeysaan baarakallah ihsaan boobu nag mhm. fala fala aslu tasawuf fala aslu tasawuf jóge mooy rafetal Mm-hmm. Eh, rafetal boobu nag fan la base bi ci alquran mm-hmm. indil naa la xadisam mm-hmm. alquran yàlla dafa wax ni baada audu billahi min alshaytani irajim laqad manna allahu ala almuminina id baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim macha allah gis nga baatu tazkiya boobu tazkiya moom moo jàpp tasawuf tasawuf macha allah xam nga dafa ni yatlu alayhim ayaati wa yuzakki day ñëw jàngal leen <laughs> eh. ñu defal la takwin comme ni nga koy defee ci daara ji mm-hmm. jàngal xale bi mu mokkal jàngal ko mu mën a bind mm-hmm. jàngal ko mu am boo paree nag mm-hmm. tarbiya bi mooy tazkiya bi mooy tazkiya bi tazkiya boobu nag mooy tasawuf mooy tasawuf soo xoolee sayyiduna Umar ah, radiyallahu anhu dafa jékki-jékki ba yàgg mu reetaan jékki-jékki jooy ñu ne ko waa Umar noo mën a boolee reetaan mu ne ree day bi man bi ñu nekkee ahlul jaahiliya mhm. dama amoon sama doom bu jigéen mhm. ma war ko rendi parce que ñun loolu lañ xamoon jigéen moom rendi rek rendi rek ma mhm. yóbbu ko ba ci àll bi gas ba mu xóot ni may gasee ndekete sama sikkim bi taq na suuf eh. sama doom ji di ma faxasal sikkim bi te man dama ko war a rey dama ko war a suul te deew la ilaha illallah ma suul ko su ma xalaatee jëf jooju xam ni riir gi ñu nekkoon ak ignorance gi ñu nekkoon wallaay ndeysaan damay jooy. léegi nag xool ko moog yonent bi. alayhi salaatu wa salaam yonent bi téeku. Mm-hmm. lislaam téeku. Mm-hmm. jàngal ko. Mm-hmm. tasfiya ko. tarbiya ko. wallaay ndeysaan tazkiya ko ba Omar. Uh-huh. mënatul ren di melentaan waxuma laa. walaay ndeysaan walaay ndeysaan walaay ndeysaan walaay ndeysaan. nee na ñaareel sama reetaan. Hmm. dama boobu ba tey ci jamono jaahiliya. Hmm. dama am sama yàlla mu war a voyage ku doon hmm. tukki ñun da ngay ut sa yàlla. bu la nee nga ut yàlla beñe yàlla kado. jël yóbbaale yàlla gato <laughs> boo xam ne yaa koy fëriñ lakkal ko sa bopp. <laughs> Uh-huh, uh-huh. mu yor estati jëmmi nit. nga laxas ko ci mbuus dugal ko sa saak. soo demee ba tiit génne ko. wax ko ay baat dénk ko sa bopp. bi ñu demee ci tukki bi nag la ma yoroon ci lekk ak ndox yëpp jeex. Mhm. xiif dab ma. Mhm. amul lu ma lu ma lekk. Mhm. te sama yàlla beñe bi moo fi ne. ma génn yàlla ji xool ko ne ko yàlla xiif naa de man sa jaam bi day damaa xiif. ma commencé dagg tànk bi comme beñe la objet la. ma lekk. Mm-hmm. nee na su ma xalaatee jooju. day day ma xam ne ñun ay dof lañu woon ay dof lañu <laughs> pire dof pire. nee na nag yonent bi xoolal fi ñu. yonent bi indi alayhi salaatu wasalaam yonent bi indi ñu. Mm-hmm. ci tarbiya ci tazkiya. Mm-hmm. di ñu di ñu di ñu niteloo di ñu niteloo. boo Omar. dafa gaawoon a mer amoon doole mënul xeex uh-huh. waaye mujj na nooy ba jabaram nit fekk na ko jabar ji poñe ko di ko xas la ilaha illallah te waa dafa ñëwoon di attaqué ji Omar Mm-hmm. pour boole ko li ko jabaram di def. mu gis ñuy attaqué Omar di ko poñe di ko gëdd. waa ji yolleeku ndànk ñibbi. Mm-hmm. man may ñëw di boole kilifa gi. la may daj sama kër. Mm-hmm. ndekete kilifa gi. moo gën moom moo gën a metti li lu muy daj. <laughs> Omar woo ko ba ñëw Omar ne ko lan la. mu ne ko ah man kay li ma fi indi woon damaa gis lu ko yées moo tax may dem. mu ne ko xam naa li la fi indi woon calmer sa soxna. mu ne ko gis nga niñ may def. mu ne ko man kay damaa tiit musum xam ni. Omar yow ni nga tàngee ni la nit ñi ragale ni la nit ñi ragale ak ni la sa jabar di def sa kër la ilaha illallah mu ne ko lépp bi moo ñu wulli mhm. tasfiye ñu tarbiye ñu ba lii dañ mu ne ko ah moom mooy fóotal Mm-hmm. mooy dem ci saxaar gi mm-hmm. mooy dem ci matt yi mm-hmm. mooy paase mooy daj lu ne su ma ko mënta muñal nag lii wax dëgg Omar matu lay ndeysaan lay ndeysaan loolu mooy tasfiya wallaay ndeysaan loolu mooy tazkiya mooy taz mooy alquran ne wuyu zakkihim ak tazkiyatu mooy ñu raxas sa xol bi ba nga oyof seen baara ba nga toloore ak ñëpp am am patience su ñëpp. Mhm. koo déggool ko mhm. àndul ak koo bokkul gëm-gëm yëpp nga nangu ne ay mbindeefu yàlla yu fi nekk la. Mhm. te yàlla la neex nga muñ. Hmm, dëgg la baarakallah mais man. lii laa gëm ku ci nekkul doo dara. baarakallah amuloo tazkiya kon tasawuf manees na ko dégg ci baatu tasfiya. tasfiya qad aflaha man. man tazakka man zakkaaha. <laughs> Mhm, mhm. wa qad xaaba man dassaaha. <laughs> zakkaaha boobu nag. moom la ahlu tasawuf di mhm. def ci nit. di ko def ci moom ba mu raxas ko ba mu set wicc. ndeysaan ndeysaan barakallah loolu sëñ Baara. loolu mooy aslu tasawuf. mooy aslu tasawuf ci baabul ihsaan. dañ koy génnee ci biir hadis bi. barakallah al imaam macha allah loolu leer na déggee nañ ci ne kon ndekete tasawuf. niñ naan tarbiya tarqiya mhm. ni tasfiya mhm. mooy baatu atasawuf rek mhm. mooy que ni nit ki dañ koy yar waaye it sellal ruuxam door koo yéegal fa sunu borom mooy dañ koy tarbiya dañ koy yar waaye tasfiya ko sellal ruuxam waaye door koo tarqiya nag mu door a dem fa borom bi tabaraka wa taala mu juboo ñëpp kiñ noppi ci kiñ kiñ préparé. Mhm. tarbiye ko tar tasfiye ko tarqiye ko nu mu mel imaam. voilà jazakallah anna xayran ci laaj bi. Mhm. léegi nag ñu ne sifatul mutasawif. barakallah mutasawif bi gannaaw biñ paree ci moom. Mhm. juróomi melo yi. la war a melowoo. soo ko gisul ci moom. daa mbubbu woo tasawuf. waaye bokku ci. ak ku mu mën a doon. loolu nag moo tax sama classe gi di gis. nitu tariqa mel nenn li. Mhm. ñuy attaqué tariqa nga jàpp ne tariqa ni nii la mel te mel noonu dëgg la dëgg la te bu boobaa kon l'islam da ngay gis jullit di def mhm. jëf joo xam ne du jëfu jullit. bu ko defee nga ni kon l'islam lii la kon du du bugguma. te fekk waajee mel noonu mais l'islam. waaye l'islam melul nii dëgg la. tasawuf tamit. Mhm. li muy inkar bu ko nit ki melowowul. bul tax nga attaqué waa tasawuf. dëgg la ak ña ko woon. dëgg la dëgg la kon juróomi sifa yi sëñ Baara. moom mooy sifatul mutasawwif tasawuf bi ci njëkk mooy taqwallahi fi sirri wala alani wala alani ki dund mu tasawuf day ragal yàlla fi sirri bu wéetee wala alani bu nekkee ci biti <laughs> ragal yàlla bu wéet moo gën a jafe xam nga mhm. nga gis ma ñu nekk ci mbooloo mhm. waa ji di ragal ragalu yàlla yaru yarulu mhm. te tamit melul noon te fekk dëgg-dëgg melul noonu melul noonu waaye nag bu dee ci sirru bi yow kesi ci biir néeg ruus nga sax xalaat xalaat bu ñaaw la ilaha ba sëñ dina la yóbbu ba doo xalaat xalaat bu ñaaw parce que tasawuf dafay yar fikri yar mm-hmm. yar sa amal yar sa mm-hmm. jëf yar sa comportement mm-hmm. ba sa toogin tasawuf da koy yar dëgg la fikri ya sa xalaat sax dañ lay yar nan nga war a xalaat nan nga war a xalaat yonent bi dafa génn fekk saxaaba yi toog alayhi salaatu wassalaam rek def nii yonent bi ne leen tafakkaru fi xalqillah wala tafakkaru fi zaatillah la ilaha illallah dee leen xalaat ci li yàlla bind parce que ni leen gisee xam nañ ni sori nañu ci xalaat te ña nga ci jëmm yàlla ji te jëmm yàlla ji ku ci xalaat doo dem mooy leen bu leen xalaat ci jëmmi yàlla ji dee leen waaye xalaat leen ci li yàlla yàlla <laughs> parce que foofu mën ngeen fa ah, xuus aka mën a yare waay gis nga ni mu yaree xalaat yi kon sëñ Baara xalaat dañ koy yar lay ndeysaan mooy waral nga rafet njort ci ñëpp xam mm-hmm. ñëpp jaam yàlla dëgg la dëgg luñu luy objectif bi mooy na yàlla yërëm ñëpp Mhm. tasawuf loolu lay def. dëgg la doo yéene kenn bon doo yéene ah. kenn lu soxor. Ah. loolu mooy première sifa bi. mooy da ngay ragal yàlla ci biir ragal yàlla ci biti. dëgg la nit ñi gis la. Mhm. ak nit ñi gisuñ nga mhm. xam ni lépp a yem ci yow yàlla mi ngi lay teg bët. baarakallah. an taabudallah ka annaka tara ka annaka tara <laughs> benn sëriñ siqati. dafa toog biir néegam. tàllal tànk yi. hatifu rabbaani ne ko a hakada tujaalisul muluk boo toogee ak buur yi di nga sa tànk mu tiit banque tànkam yi. la ilaha illallah mooy. Hmm? tasawuf da lay yar ba mu nekk boo nekkee sa biir. doo ñemee def yenn. yenn yenn suul adab yi. mooy taqwallahi fi sirri wal alan rek. parce que da jàpp ni. Hmm. arraqibu yàllaa ngi lay teg bët. yàllaa ngi lay teg bët foo mën a nekk. kooku benn la ci melo. Hmm. mutasawif mutasawif. ñaareel melo bi. ittibaau sunnati qawlan wa amalan. topp sunnay Muhammad mhm. daf lay jaral lépp mhm. sooy wax sa wax na méngoog sunna mhm. sooy jëf bu ñu xoolee nañu xam ne kii li muy def ci sunna la ko kon waa tasawuf ci sunna lañ nekk lañ nekk wallahi alazim baraka itibaaru sunnati sunna amul benn buñ ci oyofal benn xam nga ñun ñoo ni sunu genre gi <laughs> dinaan sunna à garaaw <laughs> bu dee farata léegi ñun sax soo xoolee dañoo renverser affaire yi ñenn ñi dañoo jël sunna def ko palaasu farata. palaasu farata jël farata def ko palaasu sunna. dëgg la dëgg la soo xoolee jàkk yi. Mm-hmm. ñu bëri duñ dem ci jàkk yi. Mm-hmm. mais boo fi wootee woon conférence. Mm-hmm. ñu solu ba mu rafet. xëy mm. ñoo parfum yu gën a rafet. dëgg la feesal tànt bi dëgg la. te tante bi du du farata. wallaay ndeysaan jàkk. allahu akbar biñ la woo ci nodd bi. Mm, mooy farata ci wallaay ndeysaan mais doo dem wala booy dem doo solu. wallaay ndeysaan wallaay waaye bu ñu defoon ay lettres invité la nga solu yére bi gën a rafet. dëgg la dëgg la dëgg la loolu du sunna. du sunna mooy wuy ji jàkk ji. dëgg la kon euh, li ñuy wax euh, léeg-léeg nga dégg ñu dégg ñu woo ñu woowee ab kuréel idaafa leen ci sunna te fekk te fekk it boo xoolee même ahlu tasawuf ñoom it ci biir sunna lañ nekk day fekk ni déggin yi moo wuute léeg-léeg mooy wuute mhm. waaye waa tasawuf ñoom sunna la ñuy pratique wallaahi itibaa sunna xawlan wa fi'lan wa fi'lan topp sunnay Muhammad mhm. parce que yonent bi dafa ni amul kenn ci yéen ku imaanam du mat mhm. lu bànneexu bakkanam li ma indi da koo gënal bànneexu bakkanam lay ndeysaan kon li yonent bi indi su la gënalee sa bànneexu bakkan bu boobaa yow yaa ngi nekk sunni yu pire. sunna nag du du col. du col déedéet <laughs> du wat ay du du saxal sikkim mhm, mhm. du saxal sikkim moo koy mhm. wane du wat sikkim mooy wane ni doo nitu sunna dëgg la du gàttal yëre wala guddal ko déedéet sunna comportement la dëgg la comportement la surtout comportement boo xam ni yow dangay ngay am ak yar ak ñëpp yonent bi dafa mës a yaru alayhi yar boobu nag su feeñul toppal sunna ba doyal mais koo gis xas ko koo gis saaga ko ndax rek da ngaa yar sikkim yarul sikkim nga génn ko ci lislaam déedéet doo sunni loolu mat nay moytu bu baax a baax hmm. parce que dafa am loo xam ne comportement la hmm. wàllu civilisation ci col la hmm, ñun am na nu ñuy solo yonent bi daaw ko solo daaw ko solo léegi est-ce que buñ ko solo léegi du ñu ay sunni ndax wallaay ndeysaan waaw déedéet ñu a am loo xam ni jamono moo koy indi dëgg la dëgg la man ak yow émission bi ñu def di toog di ko def yonent bi da ka daan def déedéet wallaay daa dem ci Serigne Cheikh Tidiane waa dikkoon këram di ko seet si fan résidence dikk fekk mu tëju mu bindal ko lettre bàyyi ko fa ne ko ci bi daawul tëju. Mhm. sëñ Cheikh bi mu génnee jël liitaar lettre bi dégg naa da koo bindal ci ginnaaw ni ko yonent bi dëkkutoon fan résidence <laughs> mu jeex <laughs> mooy lii jamono ko indi jamono la <laughs> léegi soo ko xàmmewul nag di nga génne ñëpp ci diine ji bi fekk ko fi lay ndeysaan sànq xadis bi ñu ubbee balligu anni wala wala aaya day dugg fi day dugg foofu moo defee yu bëri ci mm-hmm. loolu lay dugg mm-hmm. gi nag yow da ngay defee ni mm-hmm. ni yonent bi meloon doon ko pratiquer ku ko pratiquer wu rek doo jullit dëgg la dëgg la ci diine am na ci loo xam koy def yonent bi defu ko daawuñ ko def ko lay bari na bari na bari na bari na bu ko defee yooyu yëpp dafa mat a xàmme ba ci ba ci alxuraan rek ñun nii ñu koy tege tegalee naan cent quatorze cent quatorze suura la amutoon yemul woon ak kaamil ñu dañ la ko ci kaamil alayhi salaatu wasalaam masque yi amul woon amutoon tomb yi amutoon mi nga yooyu yëpp <laughs> mhm. masla est-ce que sëñ Baara xam nga ni ñu ngi jàkk yi ñuy julle yonent bi dafa tere karo bi dëgg la peinture bi peinture bi dafa tere da koo tere est ko wallay wallay wallay wallay wallay jamono ko dañu xam ne hmm. rafetal moo tax ñu def ko mais defuñ ko pour bew ndeysaan ndeysaan mais léegi est-ce que jàkk ñu peinture ko hmm. ñu rafetal ko rek nga hmm. ji du sunna wallay ndeysaan wallay bi ci des si jaada yi loolu sax dama koy indi ci bu ñu yeggee ci wasifa bi <laughs> bismillah ñaar kon awalan mooy taqwallahi fi sirri wala alan ñaareel bi mooy itibaa bil qalili wal kasir arida bil qalili wal kasir nangu mhm. li yàlla def mhm. moo xam da ngaa néewle mhm. wala da ngaa bëri le mais nga nangu ni lii la yàlla dogal wallay ndeysaan wallay ndeysaan wallay ndeysaan ku ku nangu li yàlla dogal rek mhm. suufi yu piir la wallay ndeysaan mooy de do iñaan mhm. Mhm. doo soxor doo yàqalante doo ni sëñ baara moo ma ëpp li moo ma ëpp la in aataytani fa sukru wa in manaata faridan wa sabru loolu mutasawif allahumma in aataytani moo tax mutasawif du iñaan mutasawif du iñaan mutasawif du xëccoo mutasawif du yàqalante mutasawif du xas ngay def bàkkaar sax du la ayibal du la xas day ñaan yàlla génne la ci dëgg la mais du la mhm. génne ci diine wallaay ndeysaan wallaay parce que xam na ni kattanu yàlla ak mhm. machi atu yàlla mhm. moment bu ne yàlla mën na la soppi léegi nga nekkaat yéeféer wallaay yaa ngi takfiirloo nit ki yàlla mën na bala nga nekk yéeféer wallaay ndeysaan wallaay kon nga am uslub bu rafet wallaay ndeysaan xas ko xas moo muy ñett sifa bi mooy al iraadu an il xalqi iqbaalan wa idbaaran te te nga bàyyi fi nit ñi mm-hmm. nit ñi dikkal la mm-hmm. di la seet si la yow min sa mm-hmm. kër di fees del ñu naan sëñ baara mbooloo mi wuyu na ko wallaay ndeysaan wallaay na nga ko yemale ak bu ñu xëyee benn bis bala te gisatoo fi kenn wallaay nga yemale leen wallaay fii ak meloo noonu doo nitu tasaw dëgg la ñun nag fii mu ne ñun problème bi am mooy ki gis mu dàq kaalaw dàq dox ndànk dàq wax ci suuf dàq capp-cappal ay baaraam ñun jàpp nañ ne kooka mooy waaj. <laughs> te fekk sori na lool. te bari waa na ku naan koo naan mënum lëmm te boo demee lëm ma doo fa fekk dara. <laughs> wallaahi wallaahi kon moo tax lu bata bàyyi xel la. Mhm. mooy que ni maanaam mutasawif nekkul ci mën a muuru mën a dox ndànk. ak am mbooloo mën a wàcce sa kàddu mbooloo di la fekk si déedéet. déedéet nekkul ci tamit kenn bañ la. nit mën kenn mën na bañ la laa topp. te mhm. fekk jeex nga tàkk ci yàlla. dëgg la kon mhm. xàmmee. mbooloo du mooy tegtal ni da nga am cër. dëgg la ñàkk mbooloo du. tegtali wu ne tegtali amul cër ci yàlla daa amul cër ci yàlla dëgg la ñaar yëpp na yem ci yow. wallaay ndeysaan mm-hmm. mm-hmm. na la woon ni machiatullahi moo def. dëgg la dëgg la kon coobare mm-hmm. yàlla boobu nag. yàllaa leen fi indi woon. moo leen fi jëlee. moo a yem ci man. nangu naa li yàlla def. loolu sifa la ci mu. loolu sifa la loolu mën nga fa dugal. alal du jublu la mhm. alal du moyu la mhm. nga am daraja mhm. wala amoo daraja yii yëpp al idbaaru wal iqbaalu sawaun aleyka sawaun aleyka yëpp <laughs> ñoo yem ci yow ki la jox junni ak ki la jox dërëm ñoo yem ñoo yem ci yow man lay ndeysaan parce que yàlla ngay gis lay ndeysaan lay ndeysaan fii nag yaa ngi jaawale baara day lim ma bokkal du ma ko yemale kenn mm-hmm, mm-hmm. amoo cër ci yàlla wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kon mutasawif mm-hmm. dafay yemale ñëpp loolu seen ñeenteel bi la bokk na ci sifa mutasawif juróomeel bi ar rujuu fi sarraai wa darra sarraai wa darra delloo yàlla sa bopp fi sarraai wér wér nga am nga jot am nga temps. am nga alal am nga moyen. Mm-hmm. lépp wër na la. Mm-hmm. terewul gisoo moyen bi gisoo alal ji yaa ngi gis jëmmi yàlla. ci yàlla rek nga gis. Mm-hmm. bu yàlla jékki-jékki tamit teg ay jafe-jafe. feebar la nga amoon nga ñàkk ko lépp amatoo ko. nga yemale ko ak ba nga ko amee. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan loolu mooy ar rujuu ilallahi fi sarraa wa darraa. wallaay ndeysaan boo amee mbégte. nga jox mbégte gi yàlla ne yàlla la. wallaay su jafe-jafe yi ñëwee. Mhm. bul ni dañ maa liggéey. dañ ma yàq wallaay ndeysaan la dañ maa ñaane moo ñu def. wallaay ndeysaan déedéet delloowaat ko yàlla. wallaay ndeysaan nga xam ne yatasarrafu. Mhm. fii ibaadihi kayfa shaa. Mhm. wallaay ndeysaan wa yafaalu fii mulkihi maa yashaa. wallaay ndeysaan taala al ilaahu wa jalla al hakam wallaay fa maa in yuqaalu li maaza faal. Hmm. wa lim laa wa hal laa biha laxtakam. wallaay ndeysaan kon lu mu def rek. <laughs> nga nangu ko. wallaay ndeysaan nga nangu muy bi nga xam ni moom la. Hmm, hmm. dëgg la nag dana jaara jaarale sabab bi ci nit ñi. ci nit waaye nag boo santee nit ñi sant ko. ndeysaan wallaay jafe-jafe nag moo leen di yebal ne dem duggu dugg ci diw. moos wallaay ndeysaan jafe-jafe yi ñëw feebar ñëw. wallaay ndeysaan xam ni ay jumtukaay la. yu yàlla di yónni ci ñun. lan la wax aaya bi. fa lawlaa ijaahum ba sunaa tadarra tadarrau lan moo tere walaay ndeysaan walaay walaay lan moo tere bi mu indee jafe-jafe yi ñu toroxlu wàcc nangu ma teggi ko mm. walaay ndeysaan walaay kon jafe-jafe yi mm. dafa ñëw pour yar ñu mm-hmm. xiif gi Mmh. ñàkk gi mmh. difficulté yi mmh. dafa ñëw pour yar yi wallaay nit boo ko tegul ay jafe-jafe du am yar moos wallaay ndeysaan loolu tax yàlla ni fa lawlaa iz jaahum ba'sunaa tadarra'u lu tere ba ma leen tegee feebar ñu toroxlu ñu toroxlu rek man <laughs> wallaay ndeysaan lu tere ba ma leen indilee nattu ñu nangu ñu nangu rek ma yërëm le <laughs> uh-huh. waaye dañoo dëgër bopp moos ma continuer jafe-jafe ma daal di ko <laughs> ma gën a foncé ci seen kaw kon sëñ Baara baarakallah melo yooyu uh-huh. mooy melo uh-huh. mutasawif baarakallah ah imaam macha allah am na solo lool waaye yal na yàlla dollee barkeel xam-xam bi maa ngi fàttali ni yéen a ngi topp seen télé réew mi TV mhm. ci seen émission keppaaru mag ñi muy amee fii ci Dakar Sodida Sodida mhm. immeuble alhaaji Mouhamed Lamine Baara Mbacke Fadilu euh, ngeen di ko topp ci réew mi FM 97 point 5 mhm. ngeen man koo topp bu dee réew mi TV canal 108 ci TNT bi ngeen baaxoo ci ànd ak seen bokk sëñ Baara Mbacke tey ñu dalal al imam Mouhamed Niang imam am na solo ndax euh, euh, dafa mel ni fi nga tàmbalee ci tasawuf ak maanaam sifaatul mutasawif bi ñaar yooyu daanaka boo dee xool daanaka yàllay kese rek ngay gis yàllay kese rek daanaka ngay gis ndax euh, dafa am solo ndax dafa am génn kilifa goo xam ne ci suñu sëriñ yii la bokk sama émission bi wees rek maa ngi koy nettali xawma bi ci bi ci jiitu bi ko jiitoo Asiya Abdul Ahad Mbacké dafa seeti alxaaji Jiili Mbay mm-hmm. ci paleem bi bi pale bi noppee dafaa ñëw visiter pale bi bi mu ba noppi daf ne ko sàllaahu di àdduna bu fekkoonte ni fu ñuy am kër la may la am nga kër xoolal maanaam moom rafet rafet gis na gis na lu baax li la fa nekk gis na ko mhm. waaye bëtam jéggi na tabaxi àdduna yi ma nga mooy liñ waxoon sànq mooy liñ doon wax léegi <laughs> ci maanaam lu mën a doon yow yàlla ngay gërëm loo maanaam yàlla rek nga ciy gis mhm. waaye gis nga bi mu ko waxee alhaaji jiiri mbay it moom it ci suñu borom ndimbal li mu ko defal moo tax moom gisatu dara pale te loolu da koy tarbiya baat boobu da dafa jeexital ci moom ba ni mu fi jógee dara safatu ko ci ci ñi ko xam loolu la ñu wax nee nañ bi ko Cheikh Abdou Lahad waxee loolu ba ni mu fi jógee dara safatu ko ci gis nga mooy taskiye bi ñu doon wax <laughs> mooy mooy taskiye bi nga doon wax léegi beneen bi mooy dafa gane si fii moom Cheikh Abdou Lahad ba tey fii Dakar ñu defal ko ay teraanga biñ ko defalee ay teraanga woo ko ne ko mu ñëw gis teraanga yi bala ñu ko commencé tasaare. Mhm. fekk am na ay xar ay gàtt yoo xam ne moom daanaka biñ ko feesee noonu rek lañ ko lakkee noonu te teg ko noonu ci palaat yi. mooy comme li ngay gis rek ci gàmmu yeeg màggal yi. nga xam ne ak gileem ngay gis ñu ñu sëpp ko nii ci taabul rek. nga xam ne da ngay dikk jàkkaarloo jëmm ji noonu. Mhm. si Abdul Ahad bi mu dikkee jàkkaarloog berne yi dafa fotosu dañ ni laa ilaaha ndekam doomu aadama moo mënal moroom mbindeefam lii asama yàlla mi ñu bind. xar mi nga xam ne yow jënd la booleeg moom. yàllaa la ko tàggatal. may la. as weccin nga mën koo jënd. nga mën koo futti lakk ko ba mu xonq nga teg ko ci palaat di jàkkaarloog moom. asama ak yàlla mi ñu bind nga xam ne juruñ maanaam juruñu jënduñu abaluñ ñu ko mayuñu. dañoo moom. <laughs> mooy li ngay wax ni <laughs> tasawuf noonu lay taskiyaa yaar noonu lay taskiyaa ruux <laughs> nga xam ne kii moom gisatul bernde yi mi ngi tiit waaye mbindeefum yàlla mi mi ngi futti def ko nii gis nga lim ciy jàng maanaam daanaka mën naa ne ñi bokkal mbokkal ngam gi ñoom lii safatu leen te baat boobu rek day yàq lekk yëpp laa mutasawif nag noonu lay def <laughs> mooy li ngay leeral ni moo maanaam damay joxe dalil ci ne. wallaahi mutasawif nii la war a mel. exactement. maanaam tasawuf day taskiya ruux. wallaahi alazim muy lu am solo am solo am solo xam naa dañu njëkkante waxtu yi rek. Mm-hmm. ndax daanaka waxtu waa ngi dem. <laughs> dëgg la Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Abul Abbas. radiyallahu anhu wa nafaana bi barakaati moom ci tasawuf boobu la nekkoon. la nekkoon wallaahi mooy maamam alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. moo ko jox tariqa. Mm-hmm. jox ko werda. mu am yit nag ay mbir nu mu ko tëralee mhm. bu bokk ci xadaratul jumaa mhm. ak wasifa xam na dañ may defal ci Seydina Seex muruurul kiraam rek mm-hmm. nu dikkee ci moom ak nu ko diglee mm-hmm. dikkal ma ci cosaanul xadratul jumaa ak wasifa voilà sëñ Baar mm-hmm. jërëjëf troisième étape bi am na solo lool parce que bu ñu jàngalee tasawuf dañuy jàngale pratique yi dëgg la radiallahu anhu sayiduna cheikh abil abbas ahmed tijani yonent bi dafa ay nitu yoo xam ne du ñu jeex ñu fi jiitu cheikh ñoo xam ne yonent bi daf daan jëflante ak ñoom ci baatin loolu aslu bi dafa yomb a dégg. dafa yomb a dégg moos. pour yonent bi génn na àdduna. Mhm. ruuxam di jëflanteeg nitu yàlla yi. Mhm. loolu c'est facile. wallaay ndeysaan xadis saxal na ko. wallaay ndeysaan. fu ma koy indee bi mooy. Mhm. xadisu isra wal mi'raj ñëpp jàng. dëgg la dëgg la. bi mu demee baytil maqdis yàlla da koo dekkalal <laughs> ahlul la azmi. mu eh. jiite leen. <laughs> wallaay ndeysaan te ñoom ñu ngi noppalu nañ. moos. mu dem ba ci asamaan yi juróom-ñaar. dee yóbbu boromam yàlla jox ko julli juróom fukki julli. mu ñëw bi asamaan bi Moussa nekk di ruuxu Moussa nekk. musa mhm. di waxtaan ak moom. Mhm. pour yàlla wàññil ko julli. pour yàlla wàññil julli juróom. Uh-huh, uh-huh. te Moussa génn àdduna. te Moussa génn yàlla di wàññi yàlla di wàññi yàlla di wàññi ba julli des juróom. Mhm. waa léegi Moussa. su mënee intervenir ci diine l'islam. te digganteeg Moussa yonent bi kenn xamul. kenn xamul ñaata at moo fa dox. baal ma dogu ma la Sëñ Saliou Sow yal na yàlla yërëm ko. xa xamu barki démb damay déglu aw waxtaanam muy wax lu mel ni naan li léeg nit ñi nga ne leen alayhi salaatu wasalaam fee ñu ne diw wax na ak moom mu di leen def mbir yi di nettali cosaanu suuratul baqara mhm. ka rayoon euh, doomi doomi ni ka rayoon doomi nijaayam <laughs> ba ba noppi dem suul ko ñu naan ku ko rey ku ko rey yàlla jox leen tegtalu jënd leen aw nag rey leen ko ñu jël yàpp nag wala ñu jël dóor ko ci bàmmeel ba ko dekki di wax ak ñoom. wax ak ñoom wax ki ko rey. ki yàlla di ko moo may ñeelee lu tax mënta may xeetu Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu mën a wax ak moom ginnaawam. <laughs> kon kon gis nga te boobu ñu bëri di weddi loolu. Uh-huh. soo leen ko laajee duñ ci def. duñ ci def te hadisu la mi ngi ci Buxaari mi ngi ci yonent bi di communiquer ak ruuxam ba mhm. yàlla wàññil ko ba mu des juróom moos mhm. waaye léegi Moussa mhm. lu tolloog julli ni mu rëy moom la góor gi wax ci miimiya wa kaana yaamuruhu Moussa rujua ila rrahmani mustasqilan hamlal hudal karami wallaay ndeysaan mu ne ko wa tilka xamsu faridatin waaye nag yakunu yakunu laha thawabu xamsiina fi ixlaasi muxtadimi dëgg la. nee na boo seetlalee juróomi. Mhm. ñu bindal la tiyaaba juróom fukk yan joxot Muhammad. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kon loolu aslu la. buy mhm. mhm. wane ni arwaaxul ambiyaa yi. du ñu dee suuf du leen lekk ba ci seen jëmm suuf du ko lekk. xatta an yonent bi nee na ku ma ñëw sama rawdu. nuyu ma ma delloo la nuyu ma delloo la nuyu bi. kon loolu liñ ci doon sukkandiku. pour wane ni Cheikh Tidiane radiyallahu anhu. fi mu jëlee tariqa bi mi ngi ko jëlee ci yonent bi. ci maamam alayhi salaatu wasalaam su Moussa mënee lee yonent bi mën lii. wax dëgg. kon wax dëgg te mhm. bu doon sax li mu indi. Mhm. biñ ko xoolee moom Cheikh na Tidiane dañ ne ko ayyuka zabu alayka. Mhm. est-ce que jamono dina ñëw ñu sosal la ne tariqa bi yaa ci def li yaa ci yokk lii est-ce que loolu dana mën a am mu ni waaw dinañ ma sosal ne maa wax lii te waxuma ko. ñu ko bu boobaa lu ci pexe. mu ni ida sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i la ilaha illa allah in waafaqa fa mm. xuzuuhu ah. wa in xaalafa fatruku wallaay ndeysaan macha allah dinañ ma fenal danañ ma sosal mm-hmm. ñu ne ko buñ la sosalee nu ñuy def mu ne lépp luñ ne maa ko wax mm-hmm. dem leen peese ko ci balaasu sharia balaasu sharia mooy alquran ak sunna su dëppoowee mm. maa ko wax parce que ñemewu ma wax lu génn alquran ak sunna mm-hmm. su dëppoowul waxuma ko du dëgg kon il faut nga mën a peese waxu cheikh pour wane ni lii dëppoo nag xadis wala alquran wala déet. wala déet Cheikh ni lii la waxoon. dëgg la dëgg la. léegi nag yonent bi jox ko. werd werd. Uh-huh. jox ko laazim ak wazifa laazim. mooy téeméeri astaghfirullah mi ngi ci alquran. Uh-huh. téeméeri salaatu ala nabi téeméeri laa ilaha illa allah. joxaat ko wazifa. Uh-huh. fanweeri istighfarullah azim alladi. juróom fukki salaatul fatihi téeméeri laa ilaha illa allah. ak fukk ak ñaar jawharatu kamal. te jawharatu kamal salaatu ala nabi la. wallay ndeysaan wallay ndeysaan. Cheikh na Tidiane. même bi bi mu ko jotee. Mm-hmm. wanewul ne jot naa nangam déedéet. Mm-hmm. moom Mouhamadou Ghali ñoo ko seetlu ne ko sëñ bi li ñu gis ngay werd léegi ak la nga daan werd mu ne waaw dafa am lu ma sama maam jox te ma ko jëlee ci alquran mi ngi ci hadis yi ah, udkurullaha dikran kasiran mi ngi noonu dinaa ci ñëw dinaa ci ñëw cheikh jox leen ko ah, di ko ah. joxe di ko joxe usal ko usal ko ay charte comme mutasawifuna yëpp ni ñu mm. amee ay tariq usal ko ay mm-hmm. règle ak ay mm-hmm. charte mm-hmm. ku ci nangoo bokk xayrul woowul kenn campagneul kenn ku ci bokk te coobare te pour tar tarbiya sa ruux mm. man di leer mm. ñu ngi koy amee ci zikru wallaay ndeysaan sëñ baara gis nga suñu jëmm yi mm-hmm. aliment lay dundee ak lekk ak naan ak sangu ak toilette waaye ruux bi yàlla soxla ci ñun mm. laa ilaha illa allah ak tilaawatul qur'aan ak ibaadaat lay dunde wallaay wallaay wallaay wallaay laa ilaaha illallah boobu nag mhm. ci la ñuy mandile sa ruux ba mu fees dell ak leer yàlla muuri la kiiraay yëpp nga jàkkaarloog lu la neex moos wallaahi ndeysaan li koy firndeel mhm. mooy yàlla moo ni ci hadiis qudsi mhm. laa yazaalu abdi yataqarrabu nii binnawaafili binnawaafili hatta kuntu samaahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu ila axiri ila axiri mhm, mhm. jaam bi du deñ mhm. di ma jaamu ci ay nawaafil nawaafil mooy luy aziyadaatu an il di ko def di ko def di ko def sell ba ma nekk loxoom nekk gi làmminam nekk bëtam nekk tànkam dëgg la lu mu wax ma def dëgg la dëgg fa la wilaaya génne wallaay bu ko defee nga defee ni sëñ baar mooy wilaayaam mooy def te déedéet yàllaay def dëgg la jaare ko ci moom dëgg la kon aslu wasifa wasifa baat bi mi fiiri mu mooy li ngay taqoo di ko def chaque jour mooy wazifa mm. fa mu wazaf jóge employé ki nga mm. employé ci sa société mm. muy liggéey di xëy di gontu loolu mooy mu wazaf mu waasaba waaw xëy mu waasaba bi mu waasaba waaw mu ah, waasaba mooy taqoo mu wa al mu waasaba wazifatu al mu waasaba uh-huh. mu wazaf bi za bu ñu tomb. Mm, naam naam waaw moom boobu laay leerlu. ok mu wan mooy firi fonctionnaire. waaw kay voilà. <laughs> mooy firi fonctionnaire fa la wazifa bi jógee baatu ah. wazifa. Mm-hmm. li nga koy takkoo suba ak ngoon. Mm-hmm. moo tax ñu tuddee ko wazifa. Oh, ñu tuddee ko wazifa di waaj di takkoo mm-hmm. istighfar suba di ko takkoo ngoon. barakallah barakallah baatu wazifa jógee leer na leer na. bu ko defee <laughs> werde moom. Eh. baatu werde mi ngi jógee ci warada. warada mooy ni ngay rootee ci biir teen bi di naan. fa la weer di jóge ndax liñ ci jublu mooy sa ruux day naan ci leeru istixfaar mm-hmm. di naan ci leeru salaatu ala nabi di naan ci leeru la ilaha illa allah ñu tudde werd mm-hmm. mooy mi ngi naan mi ngi naan mm-hmm. werd warada yaridu kon baat yi loolu mooy dëgg fi ñu jóge dëgg la léegi nag est-ce que am na fondement ci alquran wala ndax Mm-hmm. am na fondement ci hadis. ayca mm-hmm. ak dajaloo bi ñuy def di wër benn mbalaan. di mm-hmm. werd es ce que am na. est-ce que fan la ko l'islam waxee. surtout sax foofu parce que ñu maanaam liy muskile bi dëgg-dëgg mooy. ndax dajaloo ci benn barab di tudd yàlla waaw am na aslu ci islam <laughs> ak it eh, di woo yàlla ci benn baat waaw kay loolu yëpp nag danaa la ko indil ci <laughs> aaya <laughs> indil la ko ci hadis su fekkee indi naa ko bu dëppawul nga ne ma lii dëppawul dëgg la dëgg la pour rek leeralal nit ñi ne li ñenn ñi di di wax wazifa bi ñuy def mbooloo suba ak ngoon ak xadara bi ñuy def ci juma fan la ko hadis indi ak fan la ko alquran indi bu ko defee aaya bi ñuy njëkk indi baada aoudu billahi min alcheytaani rajim ma ngi ci suuratul kahfi ma nga nekk aaya vingt huit wasbir nafsaka maa alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati walcachiyi yuriduuna wajhahu wala taadu aynaaka anhum turidu zinata alxayaati ddunya wala tutic man agfalna qalbahu an zikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta bii buñ ko tojee <laughs> mm-hmm. da nga xam ni wazifa mm-hmm. da xam ne werd mbooloo mm-hmm. dajaloo di tudd yàlla mm-hmm. génn na fi yàlla dafa ni sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalam sallallahu alayhi wa sallam wasbir nafsaka sa jëmm ji na ko tëj na ko saxal na ko dëj nang ko kole ma alladina yaduuna rabbahum nga ànd ak ñi nga xam ni ñu ngi woo seen boroom di ko tudd di ko jaamu bil gadaati ci subay wala ashi yi Mhm. mu ni yonent mooy na nga sax benn barab. voilà <laughs> yii nga xam ne nii suba ak ngoon dañuy toog sax tudd mhm. na saxal sa jëmm ji foofu parce que boobu surafaaw màkk yi dañoo ñëw mhm. ne ñun dañ bëggoon a waxtaan ak yow ñu tuubee te ñun bu ñu tuubee ñu bëri dinañ tuub mais fuqaraaw yii la wër ñoom Bilal ñoom Ammar ñoom Yaasir daal dañ bëggoon nga isolé leen parce que ñoom benn yére la ñuy sol pendant un mois ñun daal dañ bëggoon waxtaan ak yow eh, eh, xale xel mi xalaat. yàlla ne ko abadan. man laa ilaha illallah ñii laa la wax na nga toog ak ñoom. ñii laa wax bul teqalikoo ak ñoom. Mhm. ñoom la ñu tuddee sax ëllu sufa. Mhm. mooy bi ñu gàddaay ñëw mhm. Madina. ñi nga xam ne ñoo daan taqoo ko ji. balay desal ñu julli woor et cetera. kama taalam. yàlla ne ko wala taadu aynaaka anhum. sa bët bi. bu mu teqalikoo fuqaraa yi di tudd yàlla walay ndeysaan léegi lan mooy wane ni. tudd yalla la. yaduuna rabbahum xam na ñoo xam dañ koy firee ne jaamu. jaamu julli lay doon te julli wax dëgg julli xam su salawaat yépp la da ngay mm. julli guddi mm-hmm. timis geewe suba mm-hmm. da nga koy julli guddi dëgg la uh-huh. tisbaar takkusaan da nga koy julli bëccëg kon fii bu nee bil gadaati wala achi yi zikru la mm. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan mm. bi ci des lii wane ni aaya bi zikru la mu ne wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina an an zikrina eh, wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan bul topp ki nga xam ni xol bi négligé na boppam ba seytaane yilif xol bi Mm-hmm. ba amatul benn conscience ci man yàlla ba seytaane mm-hmm. moom xol bi mm-hmm. kooku bu ko topp est-ce que xam nga baara boo dul tudd yàlla seytaane muy dëkk walay walay walay al qalbu baytun min buyutillahi walay ndeysaan fastaghilha bi zikri la billahi walay ndeysaan xol néeg la ci néegu yàlla yi dëgg la occupé ko tudd yàlla dëgg la wala seytaane jël ko wala seytaane moo tax mu ne ko wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina gis nga mm. kon man axfalnaa qalbahu an zikrina mm. moo lay wane ni fii tuddukatu yàlla yi la yonent bi ne ko yàlla moom la wax mm-hmm. Mm-hmm. bul taqali ko ak moom la ko alxuraan di wax mm-hmm. ñaareel su suñu demee ci suuratu nuuri maa ngi ci aaye ci saa 36 ba 37 fi buyutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fi xasmu yàlla ne man maa santaane ci jàkka yi ngeen fay tudd sama tur di ko yëkkati ca kaw yusabbihu lahu fiha bilghudi wal asali rijaalun hmm. laa tulhi rijaalun du jam'u hmm. hmm, wallaay ndeysaan mbooloo la wallaay ndeysaan waaw an turfaa wa yuzkara fii xasmu yusabbihu laha bilghudi rijaalun laa tulhim tijaratun wala bay'un an dikri loolu du jam'u <laughs> wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan te ci nii nga mi la wax moos ñu fay tudd turam di ko yëkkati ca kaw loolu alquran la bokk ñetteelu aaya bi mm-hmm. wa man azlamu mimman masa manaa masajid allah an yuskara fi hasbu mm-hmm. ñen ñoo gën a mën a tooñ ñiy tere nit ñi ñuy tudd yàlla ci jàkk yàlla yi la dëgg la kon loolu ay dali ay dalaa'il la yu leer alquran indi di wane ni toog ci jàkk yi di tudd yàlla di dajaloo di moom lu sax la ci alquran alquran moo ko indi ah, lay ndeysaan mm-hmm. gis nga beneen bi est ce que xam nga tudd yàlla mooy jaamu boo xam ne boo koy def yaa ngi koy def ak awaalim yépp Mm. naatiqiha wa jaamidiha wa jaamidiha awalim yëpp mm. sooy tudd yàlla yaa ngi def jaamu boo xam ne mm. même caméra yi ñu tiim. Hmm. ña ngi koy def. ñoom ña ngi télé yaa ngi koy def. taqandeer yaa ngi koy def yére yaa ngi koy def illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna <laughs> tasbihahu kon zikru boo koy def yaa ngi koy def ak awalim yëpp. moom mooy jaamu yàlla bi daj lépp. dëgg la bu dee koor ñenn na koy def. Hmm. bu dee aj màkk ñenn na koy def bu dee azaka ñenn na koy def mais zikrullahi yaag malaaka yeeg. yaag ñëpp a koy defandoo awalim yeeg xayawaanaat yëpp dañuy tudd yàlla. yëpp yéen a koy defandoo macha allah wa saxarna maa daawuda al jibaala yusabbihna bil ashiyi wal ishraqi wa tayra mahsuratan kullun lahu awaab bokk na ci bu dee ci xadis yi wane ni tudd yàlla ci mbooloo am na yàlla moo ni man zakara man zakara ni fii nafsihi zakartuhu fii nafsi wa man zakara ni fii mala in mbooloo taxaw na ku tudd ci boppam ma tudd la ci sama bopp kuma ma tudd ci mbooloo ma tudd la ci mbooloo mi gën sa bos la ilaha illa allah waa kon géew wasifa yi ñëwul. wallaay ndeysaan ku mu tudd ci la wallaay te gars yi nee nañu dajaloo di tudd yàlla mbooloo amul. wallaay ndeysaan. <laughs> te lii hadis la wallaay ndeysaan ñaar bokk na ci hadis bi nga xam ni. Uh-huh. yonent bi moo ni. Uh-huh. abi said moo ko solo uh-huh. laa yaqudu qawmun yazkuruuna allaha illa xaffatuhum almalaikatu wa gachiyahum arrahmatu wa nazalat alayhim alsakinatu wa zakarahum allahu fi man inda du toog mbooloo di tudd yàlla lu dul yàlla sotti na leen mhm. yërmande ak dal ak njéggal moos wallaay waa léegi tijaan yi li ñuy def ci jàkk yi subaa ngoon wax dëgg xadis bi jëlu ko wallaay wallaay du toog du toog am mbooloo di tudd yàlla wallaay ndeysaan wallaay kon sëñ Baara kon gis nga ni nga xam ne maanaam euh, moom xadratul jumaa ak mhm. moom wasifa mhm. ndax ab sart la ci tariqa tijaan yi mboolem ku ci bokk da nga koo war di def wala ku man def waaye ñàkk gaa di du yàq dara déedéet la ab la boo xam ne boo ko bàyyee. Hmm. boo otuwul da ngay génn ci tariqa bi. baarakallah bu dee xadaratu juma. Hmm. soo amul ngant da dem. Hmm. soo amee ngant wàcc na la. beneen hadis bi wëral xadaratu juma yi ñuy def ci mbedd yi. di ko def ci stade yi. yonent bi moo ne ci hadis abi hurayra ko solo. radiyallahu inna lillahi malaikatan sayyaratan fudalan. yatatabbauna majalisa zikri. xadis mm-hmm. bu gudd la du fi yoo mm-hmm. yonent bi defe ni yàlla am na ay malaaka yoo xam ni mm-hmm. sayyaara sayyaara mooy dañuy wër dañuy wër waaw naaw ci jaww ji lu ñuy xool mm. yatatabauuna majalisa zikri lan la mm. ñuy wër mm. jataa yi ñuy tuddee yàlla xadaratu jumaa duggul xadara boo def ci mbedd mi dugg yatatabbauna majalisa zikri majalisa zikri baarakallah te nag fi turuqi la wax ci ah, yoon yi ñu fay mm-hmm. tudd yàlla mm-hmm. Mm-hmm. nee na bu ñu demee ba gis benn mbooloo yu tudd yàlla dañuy wootante seen biir kaay leen kaay leen li ñu fi indi mu ngi nii ñee ngi tudd yàlla ñu rangale seen i laaf yi di leen aar ndeysaan ya bu ñu paree dem rendre compte yàlla baarakallah yàlla ne leen lan la ñu ne ko dañoo dem ci adduna fekk fa ay géew yu ñu mm. lay tudd yàlla ne leen ñoo ñu gis nañ ma ñu ne ko déedéet mm. gis nañ safara mm. déedéet gis nañ àjjana déedéet dañ lay tudd rek ngir bëgg la yàlla ne seede leen ne jéggal naa leen yërëm naa leen. baarakallah waaye bu dul. <laughs> fondement ci xadara bu dul fondement ci wasifa uh-huh. lan mooy. lan mooy fondement ci ay aaya wax ay hadis waxuma la Maodo nee la Sëñ Tuubaa nee na. la jiw nee na. wax ay hadis nabawi. wax. waxuma fi waxuma fi Serigne di na. nee na. wallaay ndeysaan la wax moos. moos ak yàlla fi muy waxee mhm. wazkurullaha mhm. zikran kasiran mhm. wa sabbihuhu du du aay bukratan wa asila waa léegi wazkuru tudd leen <laughs> lan la wax allaha allah waaw allah allah. zikran kathiran. kon seex mu répété bi ñuy répété allah allah. Mhm. yàlla moo ko. wallaay ndeysaan waskuru. Mhm. tudd leen. allah allah. wallaay ndeysaan zikran. Mhm. répétition boo xam ni kathiran. baarakallah baarakallah imaam am na solo lool <laughs> xam naa ñetti minute ñu dese euh, li nduuf ci nag bi daa xajandoo wut ci cin li. waaye xam-xam bi dafa leer lool. seex Muhyiddin Seex Muhyiddin Samba Diallo yàlla yàlla dolli ko yërmande ak leer dama dégg muy wax ne Euh, yow mi toog te yàlla xam na ne bi mu koy wax boobu yii yëpp ëmb ndax bi mu faatoog léegi daanaka def na ñetti at ñeenti at mm-hmm, mm-hmm. damaa gis benn vidéo yàlla dogal na mësuma koo gis waaye damay si topp ay waxtaanam damaa gis aw waxtaanam mu ciy wax ne euh, yow mi toog naan lu tax nga dégg koy woo yàlla ci benn baat naan allah allah nga di ko critiqué déedéet bu ko critiqué mm-hmm. bilaal bilaal ba muy woo yàlla ci turu ahad ahad jooju xabaar la naan allah allah mooy mubtada maa ngi door a ñëw kon allahu ahadun la allahu akbar maanaam ba muy wax loolu ay at la ci ginnaaw yàlla xam na ne booba polémique yi yëpp amut xoolal xoolal moo tax maanaa boobu laa ilaha illallah nga xam ne maanaam nit yi yàlla yi ak seen dégg-dégg beneen affaire la maanaam seen dimension spirituelle xam nga diine fahmu la wallaay ndeysaan ñu ngi dégg-dégg bi fa lañ rawante dëgg la léegi nag boo amul dégg-dégg dëgg la dëgg la te gis nga boo dégginu kare mooy mu lu koy firndeel mu gis nga boo nekkee école élémentaire mm-hmm. universitaire bi buy débat di wax. Mhm. yow day mel ni kii day jéggi sa dimension. waaw kay noonu la mel day jéggi sa nag boo nekkee ci élémentaire ci diine. dëgg la nga defee ni yow. moos te yegg goo. ngay critiquer ñi ci kaw mooy ni la. képp la yam la dëgg la dëgg la romb la foofu. baarakallah imaam xam naa da daal di yëkkati jotaay bi am na solo lool. macha allah <laughs> yal na yàlla sàmm la te suñu borom doolee leeral làmmiñ wi. te doolee ubbi dënn bi. amiin yaa rabbal tëjee rek sant yàlla di la gërëm ci mm-hmm. Mm-hmm. liggéeyal diine bi ngay def parce que lii am na solo woo borom xam-xam mu ñëw traité masala moo xam ni ñaa ngi ci polémique ñi mm-hmm. naan wér <laughs> nit ki tamit ñëw indi ay aaya la maa xalaat lii di wa xalaat lii teg ci taabal bi ne la lii ay aaya la lii ay xadis la uh-huh. loolu lu ko gën a wér amul dëgg la parce que alquran ak adi xadis mooy fondement lépp dëgg la te yooyu laa la fi indil dëgg ma fi waxoon xalaatu diw dañ naan ay waxi sëriñam la fi wax. ndax it kat fi mu ne léeg-léeg da ngay dégg ñu naan débat bi débat xam-xam la ana alxuraan ak sunna <laughs> mooy lii nga wax rek indi ak sunna léegi débat xam-xam la débat xam <laughs> moom mooy da ko jëriñu baraka mooy tolérance mhm. diine mhm. soo bokkul ak nit ki niveau da ngay am tolérance dëgg la su su suñu temps bi mayoon mhm. naa la indil saxaaba yi lañ wuute saxaaba yi daan daan wuute ci waxu yonent bi wallaahi ñii dégge ko nii ñii dégge ko nii te kenn ku nekk da ngay nangul sa morom dëgg la bu ko defee loolu la ñuy woo ci pénc mi wuute dégg-dégg du jeex ba adduna di day tukki ni ñu wuutee jëmm mhm. noonu la ñuy wuutee xalaat noonu la ñuy wuutee ay dégg-dégg bu ko defee loolu laa ci doon indi tolérance mhm. ak woote jàmm mhm. ak jàngale xam-xam te yàlla tax ak bàyyi te weddi wante bi ñun lislaam ñu ngi ñuy xeex partout dëgg la wallaahi li ñu war mooy ñu jéem a bennale njàngale mi bàyyi sëñ baara li mu nekkee du dëgg murid la kii tijaan la kii ibaadu la yooyu war nañ ko passé war nañ ko romb parce que nit ñaa ngi ñuy xeex partout diine ji romb na foofu kon nag loolu daal laay tëjee alimaam daawaana alhamdulilah baarakallah baarakallah macha allah alimaam li ma wax léegi rek li duuf ci nag bi daa xëy a duwut ci cin bi waaye insha allahu taala danañ amaat beneen jotaay bu gën a ndax euh, xam-xam feeñ na mhm. te it euh, alquran maanaam euh, te man waxtaan lii laa ci bëgg mhm. mooy que ne lépp loo ma indil rek na am ay tegtal mm-hmm. Mm-hmm. nang ne ma alxuraan a ngi nii wala nga ne ma sunnaa ngi nii mm-hmm. wala nga ne ma waxi borom xam-xam yaa ngi nii mën naa nangu yëpp ndax waxi borom xam-xam yi alxuraan lay firi wala muy firi sunna moo tax man boo may wax nee ma alxuraan nee na wala nga ne ma sunna nee na wala nga ne ma borom xam-xam yi nee na kon waxtaan wi wax dëgg yàlla tegu na ci alxuraan waaye tegu na ci sunna it waaye tegel tegu na it ci njàngalem boroom xam-xam yi yal na yàlla sàmm la yal na yàlla dolli ibbi sa dënn leeru xam-xam yi yàlla na la mm, topp euh, baarakallah sant nañ bu baax a baax a baax a baax jàppandal gi ñu ko jàppandal yi ñu woo la nga sa yitte mm-hmm. wax dëgg yàlla bàyyi mboolem programme yi nga amoon ñëw mm-hmm. ànd ak ñun yit ci liggéeyu diine bi ñoo nga la ciy sant bu baax a baax a baax a baax a baax mbokk yi lii moo doonoon seen émission keppaaru mag ñi tey moom lañ indi loon fii ci seen tele euh, télé Rewmi TV seen émission keppaaru mag ñi ngeen doon ko ànd ak seen bokk sëñ Baara Mbacke di ñaan lu ci jub yàlla la lu ci dëng matadik doomu aadama la in uridu ila l islaha mastatatu wa ma tawfiqi ila billah wa aleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu